salari jiin bismillahi ma dee ci door mam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi mam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow mbër bu ko ci bëgg daan daal di nga ko respecté jox ko cër waaw jàpp jàpp ni mbër la comme mbër yëpp mhm. bu defee nga mën a bëreek moom quoi et puis dama seetlu ci moom leen naa ah. mhm. bu jëkkoon combat bi njëkk yi da daan xare jàppante xeex xeex xeex mais léegi dama gis ne Zarko day bëri ci. waaw parce que xam na ni làmb léegi. ci ay làmb ci ndoxtu la. ñëw def affaire guerrier ñu dóor la fii gaañante amul njëriñ li am solo mooy sport ngay def sport de combat ngay def bu fekkente ne xeex bi moo gën a gën a jublu xeexal waaye bu mu yàgg demal nga bëre ji parce que kenn du laaj ko dóor ku daan la laaj comprendre nga hmm. loolu la xam moo bu ñëwee dina soo jaay làmb ji bu xasee ba dugg si ci géew bi hmm. beneen Zarko ngay gis hmm. tey ñaabu ndaw amna ci lo xam dañi man tay lim beure sax man dama daf ma dama ko dama ko xawa xeb quoi parce que man yaakaaroon na ni waroon na gën am lu gëna wona ci combat bi waaw waaw bu ñaabu ndaw parce que man waroon na appliquer Zarko da ko may loxo léegi nak liko Zarko may non da ko waroon exploiter hmm occasion bi waru mu ko rëcc waru ko même bu koy Zarko di daane pa ni la ko waroon daane combat bu métti la Zarko waroon beure bala ko daan bala mu ko daan bu defee dinañ ni ah Zarko daan nako kat waaye ki demiriteul nangam nangam waaye soo ko andi won lu muy beure non man su ma ko indi woon xam nga tey communication bi ñëpp ni Niang bu ndaw dafa ñemee Zarko waaye bu ma ko indi woon dama naan ko da wala Zarko da nga laa ragal comme jot nga say mhm. nga dóor ko direct gauche mhm. force dina bëre bëre boo xam te ni baaxul su ma la jàpp su ma ko su ma ko dóoree direct gauche bu dalee bu Zarko siggee su ma la songee dama lay daan parce que xale la jot na loxo jot na macha allah bu ko pakatee arène nationale suuf si dafa diis mhm. pakatee ak moom ñu bëree force dañuy am leen bëgg même bi koy Zarko di sol bu fekkonte ni suivre na ndoxtu bëre bi wara na ci moom ci moom. Mhm. war naa mën a dëbb sol Zarko ëñ ko. Mhm. Zarko forcé mu delloo ko. ok contre Keleku. waaw parce que Zarko day bëri lool day ñëw forcé bëgg a jeexal làmb te làmb kenn ko jeexal ci une minute li may wax rek làmb moom nekk defal li nga war a def ba keroog. muy jeex mais gis bi ñu tóorante foofu xale bi ba xale bi Zarko dafa mel lu koy song ñaam tamit daa mel luy song mais Zarko moo yeggale. non ñaa da doon song Zarko di song léegi bi Zarko di ñëw ñaam ndaw daje naa moom loxo ma ngi ci biir léegi nag ci loxo moom nekkoon ci biir da koo doon dugal ci poxtaan comme moo nekk xale. jaakaar mhm. naa ne ci liñ xalaat moo war ëpp doole. waaw ci liñ xalaat. ci liñ xalaat. waaw xam nga leen xalaat li war am na. li am du benn mhm. leen xalaat léegi da koy dëbb sol. Mhm. iñ ko. bu defee Zarko day taxaw na ko parce que Zarko boo xoolee mu ngi jël bopp bi teg ko fii. dëbb na ko sol fii bu génn damay génn bopp bi rek Zarko day forcer nga def li nga bëgg def. waaye loolu peut-être. dañ koy liggéey préparer ko jox ko ak mooy li ma wax keroog ci sa benn site internet man ko bu fekkente ni Zarko dafa pàdd Niang bu ndaw mu daanu. Mm-hmm. dama naan Zarko kii Niang bu ndaw cuune la parce que warul nangu. <coughs> pàdd boobu parce que mënu ko def ñaari nit nga koy gis nga xam ne kii bërëm la mu ñëw di la ci loolu moom ànduma ci. ok te part boobu dami dalay calculer tamit say pa lay calculer waaye tey bu fekkon dañ sama classe ki lay beure dañ koy pièce ndax dañ ko ci dañ ko ci wo mu ñew mu duggal ci mu jëm yow part boobu mën nga ko ci suru xal manam wa si parce que mën na ko ci lal quoi mu ñew pour part su dawe ba part parce que nit bu lay part normalement nga nek bërekat da nga ko wara sandir su la part nga nga taf ko yoru ko plaqué ko. dama gis Mamadou Ndiaye def lolu ci lu bëree. boo ko jéemee part. champion bobu Mamadi le grand eh, moom ci bëre ci moom la dëppee. Mamadi ak mën a bëri maa ngi bu baax. Mamadi Ndiaye ku mën a bëri. Eh, làmb simple moo ci dàq bëre soo bëggee dëgg-dëgg. Ah? waaw man man man moom laa nangul. yow da nga jàpp ne ci numéro un. mooy numéro un bokkuñu. zar Mamadi njaay bu la jël see bëre soo ko jëlsee mu bëre bu la wëree ndomba bëre boo ko wëree ndomba mu bëre. za Mamadi Ndiaye day yenu day def lépp Mamadi Ndiaye wax ma lu mu mënul ci bëre waaw kon de na. lépp la mën lépp boo ko jëlee tànk mu bëre bu la jël see nga bëre soo ko waree ndomb mu bëre bu la waree ndomb bëre. yéen na mbër sax di dox ak moom. waaw yow kooku dégg la ma la wax bëre kay ci moom la dëppee laa wax dañ koy ñaan rek tamit te gars yi jël ko tamit quoi dafa war a am combat may ko sens parce que champion yi mel noonu. waaye macha allah gisoo fan yi ni muy def bëre simple. wallaay keroog kay maa ko euh, la na ko gars yi jël. bu Grand Yoff ñëpp ay champion lan comme li ma wax rek waaye Mamady gars yi dañ ko war may loxo ñu mu mu dóor parce que noonu bu faatee am na ko dóor waaw am na combat dóor est-ce que daanul. daañu la fay ak waaw waaw combat yi est-ce que lu doon